ki damay gën dugal dëggal li ma bëggul woon def yow dama koy def kii day dee bañ dem ñaar fëgg waaw maa ngi dégg non non bàyyi ko mu dem bàyyi nan def bàyyi yow ñu ngi seetal waxuñu dëgg nan ko wax dëgg ko rek bàyyi ko ah, da ngay déglu li ma la yaa ngi dégg booy bi dafa réer dañuy saaga ndey quoi. gannaaw ba gannaaw gannaaw mais gars dafa lu ma sànni xoolal mu ngay saaga ndey. booy bi dafa sànni dafa lu ma sànni. booy bi dafa lu ma sànni. mais dafa lu ma sànni. dama nag. waaw gars yi man dama leen jàngal mbër. ok dama leen jàngal jàngal. ok jàng jàng. ay sànni ay sànni. non moom moo ma sànni ndey. booy dafa sànni sunguf. ci la bokk. waaw ci la.